asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki téléspectateurs yi jàkkaarloog ñoom dañu seetaan noo ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte di ànd ak yéen ci liggéey bi nga xam ne moo di liggéeyub lagan Lagane nag di daara joo xam ne eh, Serigne Saliou Mbacke Xaadimu Rasul moo ko eh, sancoon daan fi liggéeyal yàlla eh, mm, ba sun borom dogal ab liggéeyam mat mu dem aljanna bàyyi fi taawam bu baax bii nga xam ne moo ko wóotu ci liggéey bi mu di sëriñ seex Mbacke moom sëriñ Salihu yàlla na fi yàgg lool te a ko wér euh, daaray Lagane daara joo xam ne naka jekk euh, miin nañ leen ci liggéey bi nga xam ne moo di saaño dugub bi saaño saaño nag bokk yi lu wuute la nag ak suuna ndax euh, seen wuute danga feeñ ci liggéeyeen wi moo di xam ngeen ne dugub bi suuna guub bi dafa maase saaño nag dafa am ay dëkk Eh, mel na ne it eh, sama bokki séeréer yi nga xam ne ñoom ku miin saaño ci ñoom nga koy miine eh, dañu ràññeetle diggante ñaari dugu sunguf yi bi man cere ak bi man laax yi ci aju loolu moo tax liggéey bi sëriñ Cheikh daan ko faral di woote at mu jot ren jii nag ñu nekkaat ci liggéey bi jëwriñu daara ji di sëriñ Khalil Lo muy ngóobum saaño yéen gis bokk yi nga xam ne ñooy ne ci waar wi daañ leen ko wan léegi incha allahu rabbi Eh, fii ñu taxoon nag fi mooy benn jaag bi te nañ xam ne jaag yi ñaar la ci tool bi loolu lépp li muy tegtal rek mooy njàmbaaruk Serigne Cheikh ak farloom ci liggéey eh, bu la yàlla joxee mbooloo moo xamante ni bii eh, ñoom ñëpp dañoo day seen i bokk dañoo walanteeru jox la ko di wut ci ñoom yàlla di wut ci yow yàlla andi la fi ñuy boole jàng alxuraan ak tërbiyewu ñooñu dara mun leen a yor lu weesu defaat nii rek mooy delluwaat ci àll bi ne ko Serigne Touba santaane jaamu yàlla ak liggéey. li ngay liggéey ci nga mën a dëgërlu ba mën a jaamu yàlla kon gis ngeen sëriñ Seex liggéey bi ñoo ngi nii ci wetu jaag bi muy jaag boo xam ne benn la ci jaag yi nga xam ne moom la ñu def tool bi yaakaar naa nag dañuy ànd ak sunu caméraman sëriñ Fallou Galas Ndiaye ak sëriñ Cheikh Amar eh, dugg ci biir terrain bi wan leen li nga xam ne mooy liggéey bi ngi sant bu baax ci ndigal li nga xamante ni sëriñ Cheikh da ko yëkkati jaarle ko suñu rakk ji bi sëriñ Youssou waxuma la ndigale waaye barab bii nga xamante ni Cheikh Issa dafay nekkoon sëriñ bi fekk sinu bi sëriñ naar sax suñu waajur eh, fii dikk nañ fi ñetti yoon yoo nga xamante ni moo ñu jiite kon nag loolu suñu xol dañuy sedd ci eh, féetali sëriñ bi féetali sëriñ Youssou ñu ànd ak moom xanaa di ñaan ci barki sëriñ Touba rek lii yàgg te yàgg koo def ci barkeb Cheikh Issa Diène barkeb Cheikh Saliou mi nga xamante ni mooy borom barab bi yàlla nañu yàlla boole dimbali bu baax sant nañ bokki taalibe yëpp ndax gis nañ seen taxawaay gis nañ seen pasteef di ñaanal sëriñ Cheikh sunu yaakaar sunu borom dimbali ko te dëgëral ko ba ni mu yéene liggéey mu àggale ko kàddu gi nag bu ñu ko yëkkatee sunu kilifa gi sëñ Mbàkke Diène mun tàmbalee ci moom day mel ni tàmbalee nañ ci Cheikh Abdou mi nga xam ne mooy xalifab Cheikh Issa waaye day mentam tam tàmbalee nañ ci sëriñ Soye bu muy xalifa sëriñ Baara Jenn ak njabootu Cheikh Issa Jenn gépp waaye dana mentam tam tàmbalee nañ ci sunu kilifa sunu mag sëriñ Sidi moom sëriñ Naar ndax eh, yëgle na liggéey bi joxe ci ndigal taalibe bi yëpp ñu ànd ñëw ab bokk ko ak noonu kon ñu ngi leen di jaajëfal ñu koy waxee ci woote bi rek sunu mbokkum taalibe bi mi ñu ngi koy sant di ko gërëm ndax Cheikh Abdoul Ahad daa waxoon ne ku liggéeyal képp ku defal sëriñ Touba ñun taalibe bi ñoo la war a sant fii nag lu fa jëf yaa ko moom du toolub Yuusufa jenn du toolub Samuel toolub Serigne Touba la mhm. ndax ndax Serigne Saliou yoo ko samp te ñoom lu ñu sos lu ne barke ba dafay nekk ba faw sool tool bi lu fa waay fas wala lu fa waay bëgg boo ko fa sàkkoo di nga ko am ndax man wérante wu ma ni Serigne Saliou am na ngërëmu Serigne Touba te ngërëmu Serigne Touba dara mayu ko ko lu may toolam yi ak liggéey bi mu doon liggéey ci jaam ñi te tool li mu fi doon liggéey lépp njabootu Serigne Touba gi la ko doon delloo mhm. kenn wérante wu ni Cheikh Abdoul Ahad xëy na bis ni ah sëriñ Saliou mii nañ ko defaral këram gi ndax buñ ko defarut mun dajeeg suñ Tuubaa dinañ am yaraanga mm-hmm. ndax li muy bay lépp nun la koy jox te boo ko doon def ci kër moo ñu dàqali kër moo waral boo demee ñu naan tabaxu sëñ sëñ Modou Badar mm-hmm. sëñ sëñ Modou sëñ sëñ Abdou Diang sëñ Abdou Diang Balla ak naan bu sëñ Modou Aminta ak ñeneen ak ñeneen mm-hmm. kon sas woowee ñun am nañ taw tawfeex ndax nit ku baax lu mu sos barke ba dafay des donte nekkutu fi ci saahir lu fi waaye sof mi ngi mel ne nga defoon ko ci ak nekkam sëriñ Cheikh nag dañuy sant yàlla ci moom ndax aw doxinam bu doxee danañu bu jëfee fàttaliñu suñu sar yi bu waxee fàttaliñu loolu nag ñun si gine ci mboolem ko aju ci kon ñu ngi ñaan mboolem taalibe bi bu fi ñëw yàlla na suñu borom faj say aajo te itam Cheikh Saliou mos naa wax ne ku def lañ daan defal sëriñ bi ñu def la sëriñ bi daan defal taalibe yi kon parce que rek ci am solo ku ñëw daal na nga jàpp ne Sëriñ Tuubaa ngay liggéeyal mm-hmm. ndax sëriñ bi tool yi ñi ko ñu ko defar ba mu set nii mën nañ koo góob ndax kenn werante wul ni ji ko bàyyi ko ba mu set fekk ci ci waxtu wi mu toll moo gën a jafe ngóob mi waaye bu nu sëñ bu woo dañoo bëgg a dimbali sëñ Saliou nag mos naa wax ne jëriñ rek la fi yàlla indi daal ni sa law su ma leen jëriñu tam dinaa jëriñ ñeneen kon nag njëriñ loolee moo wëcc sëñ Cheikh ba tey fii daal fii daal barabu jariñu la ku fi ñëw ku ne xamal ni am nga sens ku sa aajo ndër dafa jo nag doo fi ñëw ko sa aajo ndër dafa jo tam doo am yéene ñëw fi nit nag mën naa am gàllankoor bañ fay ñëw waaye kooku moo ku fi ñëw a yem ndax am na yéene kon ñi ngi fas ci barkeb Serigne Saliou yàlla nañ ko yàgg ànd te dajee ceeg ngërëmi Serigne bi waaw ci barkeb Cheikh Saliou Mbacke mi nga xam ne mooy seen yaakaar sëñ naar nag mboolem ko bokk ci moom fu nu woote mbirum Serigne Saliou di nga ci sawar ndax moom Serigne Fallou tàmbalee woon liggéeyam waaye li mu jëflante ak Serigne Saliou ñun ñëpp seere nañ ko ndax bi sëñ bi nekk daa fekk mu am doole lool te yéene ko sëriñ bi lool lu mos a dajale yët ko lu mos a am jox ko dem na ba amatul woon sako ci moom ginnaaw bi sëñ bi làqoo ci sayir bis nee na ma man de suñ ma joxee lu rafet sax dama ko teg fee di ko xool ndax sama xel day day dem sëñ Saliou ndax ndax tàmbagum ko tàmba jox ko gànjar kon nag ku bokk ci moom ñun moom lu baax rek lañu xam te jëf rek lañ xam ndax ñun ñëpp ci ci ci jëf lañ judd ci lañ yar mm-hmm. sëriñ Cheikh nag moom neex naa àndal lool ndax koo xam ne li muy liggéey lépp sëriñ Tuubaa la ko jëmee mm-hmm. dong yi muy yar li mu ci def lépp ci ci ci sëriñ Tuubaa la jëm mm-hmm. kon nag mi ngi ci waaru sëriñ Tuubaa ne woon sëriñ Tuubaa nag weesu na fu muy doon génn kër ndax lépp buntu kër yëpp buntu kër sëriñ Tuubaa la te kër sëriñ Saliou gi ci la bokk te doxin wi sëñ bi doon doxe ñun fekkee nañ jamono sëñ bi àndoon nañu ak moom waaye wuti wuñ dara kon ñu ngi ko ñaanam yàgg fi tuwér la sëñ Fallu sant nañ yàlla bu baax a baax a baax dolli ci lan ko santoon ci jëmm ji boole nu fi boppam ba dinu liggéeyloo ndax damaa jàpp ne sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké moom sëriñ Saliou kum liggéeyloo sëñ Tuubaa la damay wax ne moom de bu sëriñ Tuubaa siwaatoon aw doxinam mbaa aw tooginam du suppiku may faral di wax ni képp kum yaral boppam ci keppaaruk boppam war nga di sant yàlla foo toll ngir aw doxinam liggéey bi nag li nu gis ci mbooloo mi dal na sunum xel lii sëriñ Modou Diop wax rek la ñuy xëy na la fi jaaroon daaw moom la suñ borom fay ci ren ba tax mu am àpp bu toll noonu yi kon loolu yi sant yàlla rek lañ ci war a mën a def tey santit nag ki nu boole ci liggéey bi muy sëriñ Seexum sëriñ Saaliw ngir toll nañ ci jamono joo xam ne am kilifa jafe na lool ku amul kilifa nag amul waaye kilifa gu mat sëkk sëkk sëkk kilifa mooy li gën a jafe ci àdduna te noonu sun borom defal nañu ko mm-hmm. loola rek doy na sant yàlla waxuma mu tàggat ñoo xam ni la Cheikh Ibra doon wax ne dama ñëw fekk ndigal raaf ma sanc yeesalaat ko te dootul raaf muy jëmm joo xam ni bis bu yàlla sàkk moom ci ndigal la ne te ci ndigal la nekk loo képp ku muy sa kilifa ci yoon wi kon sant nan ko bu wér a wér a wér sant suñ mbokke donga yi ndax amunu lu dul ñoom bu sëriñ bi wootee ñoo fay njëkk te noo fay mujj muy dongay boppam yi di njabootuk boppam ndax bu ma nee di njabootug boppam mooy nun nooy doomi xoli sëriñ bi Cheikh Ibra Fall dañu woon ñaari dooma am doomi deret ak doomi xol doomi xol nag moo gën a wóor doomi deret yoon wi nag sëñ Fallu aw sant mbaa ab juddu ma yow fi jëf rek ka fiy maye Cheikh Ibra Fall daa toog fi njaareem mbax ne Mbakke Mbeng Bukki ko ak baayam lu ci nekk baak keef la boo ko àddatee ñaar fukk ak yaar rek la lay jox wax ne doom bu leen topp deret deret bu tuuroo way kenn dootu ko jariñoo wax ne aw ñayi fi ëpp yàq bu ngeen demee ca ñu koy jëfandikoo dan naan ko fàttir ren di too jox ya sànni jël ndawal ga séddoo daa ni kon loole amul njariñ wax ne yaaram mu ni ko faal mu ni ko <coughs> lu fi gënub juddu fere ji na tekk mu laaj ko ba mu ñett yoon mu ni tekk mu ne addu kañaa fi gënub juddu waaye jikko ji bon a tax bu génnee nu ray ko daal ne doom na ngeen góorgóorlu balu jamono dox dox dox dox dox na fonk seenug taalibe ndax ak taalibe dong nga leen di jariñ boo liggéey daal ni gees daal ni ana Moustapha sëñ Modou Moustapha daw ñëw mu ne ko ana Serif Serif Assane daw ñëw mu ni dama leen di dénk ne yaar yi doo nga fi nekk ak càng akok njaam sëñ Bamba jël na càng gi moog waa këram man Ibra Fall jël naa njaam gi te dootuma dëpp ay doom lu jamono yàgg yàgg yàgg jaam gi dina dem ba nuroog càng gi waaye hmm. bu mu tax ngeen fuuy bu mu tax ngeen bew bu mu tax ngeen murtat hmm. na ngeen dooni murit ba àgg ca saarix ja denc seenu taalibe ca ruk seen bañ a kex-kexi ba muy wadd nuy sant yàlla ci jëwriñ jiinu yàlla booleel muy Serigne Cheikh Mbackeem Serigne Saliou maa ngi koy wax si ñoom Omar Sall maa ne ko li tax nu war a gën a dollee sant yàlla mooy sunub sëriñ kenn mënu koo jam ci lenn adduna kon waxuma ku mu jural boppam di dereetam waaye ku mu tàggatal boppam dong war ngaa dox ci fulla ak faayida ju mat sëkk sëkk sëkk ndax koo xam ni ci jaamu yàlla la lay xirtal ak liggéey ci sa doole fonk say wayjur yombatul ci jamono ji nu toll Cheikh Rafal ne woon nag mën a mën a joo dégg ka koy wax du moom ka muy doon doy toog ban ni ko yow wii de jiw wii de jiw saaño moom la sañ moom moom la sëñ Saali doon utloo jiw wi moom mii toog ah, waaw waaw hmm. sëñ Saali hmm. moom da doon utoo jiw jiw wi hmm. ba mu ko wutee bi am àggal laaj kon nan lañ koy doxale saaño daal ca bu yàgg ba bañ ko daan béy moom ñetti mbéy la daan am ñetti mbéy la daan am daanañ béy suuna be suuna siñor ñor bu ñuy béyaat saañu tombeeg suuna si ñor ñu fàq mbool di ñu fàq mbool di di di béyaat saañu li nga xam ne bi sañ ci nañ daara ak léegi biñ koy jëkkee bi a morso bu tuuti la fole féeti féeti ne cam ca daara ji ca gu yële ñaari xaaj lañ ko defoon atam su genn wàll gi dañ ko def suuna genn wàll gi def ko saaño mbaay maas géey lañ ko jox mbaay maas maas nan maas ñëng moom lañ ko jëkk jox fii mu góob ko mm-hmm. maas ñëng booba mu nga def dal bi fee ci sama kër booba ak léegi saa ñu ko saa yu ñu defee saa saa si yàlla doog na yokk rek waaye wàññi ko mm-hmm. wut rek daal lañ ci am defet boo xam ne bii wax dëgg neexunu neexunu ñun ñun ñi nga xam ne bii noonu noonu nekk bi te itam Eh, di di nekk mu nekkal na fi du nekkal ko fi ndax eh, gis nañ si mu eh, picc yi def loo xam def ci loo xam ne mosuñu koo dégg mosuñu koo gis seddina daaw ndax boo xayma dugub bi daaw ji ak jooju ren ji war naa mën a mingoo waaye bi nga demee boo xam ne bojj nañ ko ci téeméeri bari ko rek la war a toll waaye xam nga ne jaay ku ci xëy na téeméeri bari ko ak la ko féete ko xam nga na asaka ja génn te moo ci desoon ba ñu tàmbalee di di di di di di dugg ci tool bi mooy picc yi mooy ca ca diggi gàmmu wa ma wax sëñ xaalis ne quoi ah, sëñ bi de fi mu jàpp santaane bi sori na te yàq yi day bari na picc yi bari na mun a waaw moom ko koy wax mu ne waaw waaye nañ leen bàyyi rek ba leen leen dàq ba leen leen bi nga xamante ne bii dem na ba mu àgg bi mu moom suñ sëñ Cheikh lañ wax moo di lii liggéey bii doomi aadama do do jaami suñu borom mi rek moo tax ñu liggéey ko te ñoo ko lekk te ñu ko amee fenn ci cëralu lii mënuñu ko amal seen bopp loola wax daaw nga am ak yoon di li ngeen attanul dañ ko attanut li ngeen attanul dañ ko attanut waaye gis nga daaw bi bi mu maanaam boo ko dee xayma fi mu nekk nii la la la ci koon daaw rek suñu borom mootali na ko fi mu nekk ci kattanam. dugub bi ko gisee dugub bi ren ji ah gëj na fi am de ndeg mos na fi am. ceex ci xayma rek gëj na fee am ndege mos na fee am ndax nango bi daaw rek la nangoon lu toll nii te jotuñu ko na góob waaye yaatuwaay bi moom ren la gën a yaatu tool bi ren la gën a yaatu waaw. te ren la gën a nangu. nangu na it waaw fu mu nangu di rek nangu na ko. Mhm. incha allah. Ah, jàpp mi ma xam ñaata mètre la. ñaata mètre la mu nekk da xam nga daa jeexagut ni ah. waaye yaatuwaay bi di juróom-ñaari mètre la. waaw juróom. juróom-ñetti mètre la. Mhm. yaatuwaay bi juróom-ñetti mètre la. Mhm. waaye fi mu nekk nag ñu ngi ko xayma woon juróom juróom-ñett fukki mètre daal lañ xayma woon waaye gis nga ko ne fa ca ca piquet bële waaw soo ci lañ xayma juróom-ñett fukk mhm. waaye mel na ni ñaari jaag yi tax na dootu ci àgg ndax dañoo jàpp ne doogu jë ci benn barab lañ koy waaye ñaari jaag yi ko def tax na ba dootu mën a àgg foofa dootu mën a àgg foofa jaar ba jaag bay nag demagu ba ca waaye bii nag moom yaatuwaay bi ni juróom-ñetti mètre la li nga fii mu nekk nii daa mel dañ koo taxawal fii ndax li ni nii li féete nii sow day bëgg a jeex waaw li sow day bëgg a jeex moo tax ñu xayma xayma ko téye ko fii mhm. noonu daal laa sëriñ bi noonu naa ko gis ab cantam ci moom da koy wëlbatiku jëme ko ay ñaan waaye nag faaw mu wax ko waaw góor ndax li jaajëf di gàtt-gàtt ku jëfut do ko dégg ki jëf rek la wax jaajëf te ginnaaw jëf na nag jaajëfi sëriñ bi ci moom mooy gestu ko rek wan ko ne ko ci yoon wi ndax moom kat nii ko yàlla bindee nii mu mel ci jamonoy sëriñ bi mus cee soppeeku ba ni nga xam ne ni la noppee gis sëriñ bi ci saayir mu feddliwaat ak laxasaayam ci moom mii muy noor muy nawet muy guddi muy bëccëg muy suba muy ngoon lu mu ci di doon saa yoo ko gisee rek da ngay fekk ne laxasaay gi ci sëriñ Touba mi ngi gën di dëgër te sëriñ bii nag bokk na ci li ko yàlla nattoo mooy képp koo xam ne tege woo ci yoon wii sëriñ bi nekkoon muy siraatal mustaqim sa pas-pas ci sëriñ Touba di dëgg du ngeen mën a ànd aw yoon loolu moom am nattu boppama ndax yoon wii mu jaar munta gestu munta wëlbatiku te it munta taxaw day dem rek képp koo xam ne nag yëg na sa yëngutu ci ginnaawam dana ko wër na yéen a bokk yoon wi faw mu lay nemmeeku faaw mu lay wax jaajëf ak waaxu sil kon mi ngi lay xamal ne loolu mu waxoon ci appel bi ne ki nga xam ne yàlla dogal daara ji di lagan di ab cëram boo xam ne moo koy moo ko sàkkul boppam def ko mu dib cëram ci nekkul Serigne Saliou ba nëgë lépp loo xam ne bëggug daara jee moo xam muy bëccëg wala muy guddi muy nawet muy noor lu ko war ci daara ji rek subaak ngoon mi ngi koy def rawatina nag fii ñu toll nga xam ne waxtu yi buñ ci accès lii moom day laaj beneen taxawaay bu bokkut ak yooyee taxawaay mu jël ko lépp def ko muy taxawaayu boppam lu ci war mu di ko ci def sëriñ bi nee na saa yoo xam ne ñëw lagan ñëw na délégation bu mu fi andi li koy xamal ne gën na koo fonk mooy dana ca dolliwaat la neen lu ñu toll yokk mbooloo mi ñëw loolu nag jubluwu ci dara lu wees wane ne lii mooy sama cër te téye naa ko koo xam ne bëgg nga sama mbég jàppale ma sama cër bii sëriñ bi daan daana wax ne nit ku ne lam fekk ci kilifaam na ko sant yàlla te xam ne mooy taw fee xam kon alhamdulilahi rabbil alamina bi nga xam ne yàlla dogal na sunu kilifa gii rusuñu ko waxtaane ci mbedd yi rusuñu ko waxtaane ci àdduna bi ndax benn baat rek lañ ciy topp mooy moo tege ci yoon wi Serigne Touba bëgg yàlla ci yàlla yàlla ko ci yàlla yàggal te mu àgg ci dëkk ba te bañ a am ndog te saayu yu gestoon ak gis ñu kon sëñ Samuel sëriñ bi nee na mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm seen diggante de nee na dara desu ci sa sa ak sa dëggu ak sa jàpp ak sa cofeel dégg na léegi ci ku lay wax ci yëngutub àdduna bi fii mu toll bam ne lay càpp da nga ne ko loolu tax ma fee ñëw fii moom li fi tax a ñëw mooy damaa liggéeyal si sëñ Tuubaa sama liggéey boobu nag du ci doole dara sëriñ bi ne nee na loolu gën naa dalam xelam bu baax gën naa rafetal njortam ci yow waaye nag nee na nga dalal sam xel te rafetal sa njort te képp koo xam ne dañoo wax ne liggéeyal sëñ Tuubaa moo ma tax a yéex a jóg saa yoo jógee dabi say morom nopp dégg mukk kii da doon liggéeyal sëñ Tuubaa ba tardé bëtit du ci tege kon nag yoon waa ngi noonu waaxul sëriñ bi nee na mi ngi la mi ngi lay mi ngi mi ngi lay xool ci ginnaaw di la xool ci kanam di la xool ci ndijoor di la xool ci càmmooñ xamal na ne lépp loo xam ne du dogalub yàlla boo xam ne kenn mënu koo far balaa agsi ci yow bu ko ak ñaan dee teggi rek dana ko teggi buko ko ñaan rek dee tegg dana ko tegg lépp loo xam ne it ak ñaan mën na koo may ab taalibe sëriñ bi nee na day boo rafet njort te xam ne da nga jot ci loola ndax moom ak ñaan rek la waaye rafet njort lool nag ci ak ñaanam ndax du ñaan kenn ku ki nga xam ne du jeexal te juboo nag yàlla muy sëriñ tubaa te sëriñ tubaa du dellu ñaanu ku dëggal te moom mii de kenn nattable wut ne yoon wi mu jaar ñëpp li ñuy ñaan mooy yàlla ko fi yàlla yàggal ndax ab sag la ndam la ku bokk ci sëriñ bi te sëriñ seex di sa jëwriñ xam nga ne sagu nga ci sëriñ tubaa loo xam ne moom nii mu la sagale moo gënoon mu joxal la milliard nii mu la sagale moo gënoon mu jox la ay kër ndax koo xam ne saa yoo ko xoolee lu jataay ba gàtt gàtt sam xel delluwaat ci sëñ Tuubaa googu yokk kenn mënu ko jëlee feneen ndax ab be dara du ko yokk lu dul fu mu toogee ci kanam kilifaam yokk ci sëriñ Tuubaa te sëriñ bi ku toog ci kanamam danga am yëg-yëg ci sëñ Tuubaa da nga waat ci sëñ Tuubaa kon Samuel sëriñ bi nee na day santaar rek ndax la jiitu woon lépp rafet na ba agsi fi te séentu na ne li ci kanam mooy gën a rafet waaye nee na mi ngi sant di gërëm di gërëm mbooloo mi nga àndal ñëpp nag góor ak jigéen mag ak ndax yëg na ne sa yitte seen yitte sa bëgg seen bëgg kon nag yàlla ñu yàlla wuutu ci yitte yi fajal ñu ko ci barke Seexul Xadim ñun ñëpp ñu maase ñaanal yàlla yàggal ko fi te doole ak wéram mel na ne ngóob mi noppi na woote woon nañ ko kilifa yëpp wuy si woon nañ gisoon nañ nga xam ne képp koo xam ne sa xarita wala sa wëlëre bu lay lebal na la lebal si lagan boo xam ne koo lebaloon nan ko fay si lagan e, ngóob mi noppi na nag tey jii sëriñ bi ñaanal na la ana yan kàddu nga yëkkati. waaw bisimilah rahmaani euh, ñu ngi sant suñu borom sant sëñ Saliou di sant sëñ Cheikh Saliou si ñaan ñu ñaanal ba liggéey bi yegg yegg fii. Euh, liggéey bi nag soo gisee mu yegg fi euh, dañ see sant euh, suñu kilifa yi doomu sëñ Cheikh yi nga xam ne jàpp nañ si liggéey bi ak képp kilifa yi nga xam ne sëñ bi soññoon na leen ñu yegg si ba fii yónnee fi indi fi ay indi fi ay camion indi fi ay ay moyen te ñoo ñëpp ñu ngi leen di sant di sant nag tamit taalibe yi seen pas-pas ak seen engagement bi nga xam ne liggéey bi defal nañ ko ba mu jóge euh, liggéey bi nag waaw noppi na ñu ngi si lippi bi euh, incha allah benn jaag bi sax pare na bii mooy ñaareelu jaag bi euh, lépp rek sant sëñ bi rek di sant seen Cheikh bu baax parce que keroog bam ñu ba ñu ko yëgalee mu ñaanal si nu ñu ko defee woon daaw rek taalibe yi ànd jàmm yi kilifa yi képp si senegal yi nga xam ne moom euh, appelam bi euh, uyu ñu si indi nañ ay moyens vraiment kilifa yooyu ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax donc euh, ñu ngi sant ñëpp sant taalibe yi sant ñu jógee Saalum ñu jógee Touba ñu jóge fépp ñu jóge dakaar ñu am di jàmm yi pour que liggéey bi yegg fii comme daaw di si sant sëñ Saliou bu baax. waaw mu mel ne mbooloo mu bari dañuy defee ne sëñ Samuel euh, Lagan ngóob mi rek moom la féetewoo ci daara ji waaye daa ne daara ji sëñ bi ni mu waxee da ko def lépp daara ji di sa di sa yitte. waaw daara bi day moom ñun moom euh, xam nga lépp lu ñu sëñ Saliou euh, digaloon te yéene ñu ko. ba boole ñu si liggéey bi liggéey sëñ Touba bi ñu ngi si sëñ Cheikh yeesal ko. ak njaboota bi ñoom ñëpp yeesal liggéey ba si lépp si liggéey sëñ Touba mu doon mu doon euh, euh, saaño bi mu doon biir biir tamit euh, daara bi ak yeneen ak yeneen te yeneen yu ñu somb pour liggéeyal yëpp sëñ Touba. waaw mel na ne nag 2018 euh, mi ngi jeex. Hmm. mel na ne nawet bi jeex na ngóob mii mooy ngóob mi mujj ci 2018. Hmm. avant ngóob di ñëwaat am na luy yëngatu ci réew mi te doomu réew mi nga te dégg ñi ngay togal sa kàddu mel na ne réew mi ñu ngi am ba bëgg a fu ñu jëm. waaw wante xam nga euh, ñun nag dafa am si lu ñu yar euh, lu ñu yar nag mooy liggéey sëñ Touba ak bu sëñ Saliou ak bu sëñ Cheikh boolewuñu ko ak politique hmm. moo tax fii liggéey liggéey sëñ bi rek. moo ñu tax a jóg moo du leneen te politique day jeex wante di ñaan yàlla liggéey sëñ Tuubaa du jeex loolu nag euh, loolu nag moo ñu fi tax boo tax euh, suñ taxawee fii sax di wax waxu politique sax daf ñuy diis lool wante jox naa la rendez-vous yéen ak ñi ngeen àndal cest à peut-être feneen Dakar mais liggéey sëñ bi moom boole ñu ko ak politique